برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نينام waaye damay ñëw ak ak Abdoul Aziz sëñ Abdoul Aziz cheikh al islam multidimensionnel la gis nga lii li Amadou Samba wax mooy ne Cheikh al Islam daf ci am facette boo xam ne facette nañu defar penc mi la nañu defar société bi ku war a añ añ ku war a reer reer ku war a circuler circuler loolu am na ci dundiinam ak ci doxalinam loo xam ne yoon woowu la xaal la waaye beneen dimension itam moom moo ne woon fa sénégalu ya waa taxta zilli muhammadin fa man zanna shay'an ghayra hadha fa zannuhu zalilun haqirun lan yu ayada ki mel mooy ne euh, dafa loolu yëpp doxalin yooyu dafa am ruux bu mu doon àndal mooy ne référence am mooy diine euh, royukaayam mooy yonent bi sallallahu alayhi wa ci wàllu euh, doxalinam bu ñu def doon def continuité tey ci yoon wi mu xàll nan la ñuy def ba sóoraale ñaari dimension yooyu yëpp nga xam ne dunia xasanatan axira xasanatan ci message am loolu ak jamono ji ñu toll nii nan lay war a mën a amee alhamdulillah wasalaatu wasalaamu alaa ashrafi xalqillah maulana rasulullahi salallahu alayhi wa sallam oustaz asan li nga laaj dafa am li ma ci gën a neex mooy ruuxaani yéen bi nga wax ndax mooy source lépp ndax fi ñuy jaarale doomi aadama ba mu doon produit fini ruuxaani yéen mënu see ñàkk ndax dañuy wax bës bu nek li yëngu la ko yëg la ko yëngal ak ëpp doole hmm. té ñëpp xam nañu né doomi adama foom roham mo koy hmm su démé ba mel ne rek ci digënté bi dafa perte ay signal hmm. wala dafa euh, manque réceptionné wul dafa manque vitamine dégg nga wala lam <laughs> wara war parce que ruu gi hmm. bu fekkee ne mo mo déclencher xel mi wara a jox xol bi xol bi peese delloo xel mi xel mi wax jëmm yi nañu nañu nañu def acte yi diggante boobu fu ci rupture am rek mooy créer manquement ci jëmmi doomi aadama yi moo tax Cheikh Ibrahima Niass delluwaayam ak fu ñu ko mën a delloo yëpp ruuxaani yan la ñu jëm ndax li indi loolu mooy li alquran wax ne min almuminina rijalun sadaqu ma ahadu llah alayhi minhum man qada nahba wa minhum man yantaziru hmm. wa ma badalu tabdila am na ci jaamib yàlla yi nga xamante ne dégg nga la ñu jaayante woon ak seen borom hmm. dëggu nañ ci sàmm nañ ko lakk lañ jaayante woon ak seen borom mooy laa ilaha illa allah muhammad rasulullah hmm. mu ne am na ñoo xamante ne def nañ ba dem mu mel ni ñu mel ni Cheikh Ibrahim Niass mu ne am ñoo xamante ne ñu ngi desee te ñu ngi fi mu mel ni sunu xalifa bi tukki tey di dox doxinu baayam monsieur Mouhamadul ñoo ñu lay wax naan wa minhum man qada nahba wa minhum man yantaziru kon ñi desandi mooy kon li xalifa bi def tey wa ma baddalu tabdilan te hmm. soppiwuñu nag hmm. li ñu soppiwul lii woon ne résultat xalifa bi soppiwul mooy engouement bi bayam amon mom la répété waat maanaam dem bi mu dem Cameroun nii dem bi mu dem dafa sofu ci dem bi bàyyi demoon Cameroun ko jiitu ah, waaw tey bu soppi woon rek wala mu indi ci gis-gisu boppam wala xalaatam bu waroog dégg nga ki mu rek bu boba engouement bi dafay ute ndax li répétition la am na fu bàyyam tolloon ci aéroport ñu ne ko du génn moom mu ñëw ñu recevoir ko ci dikk bi ci dëkk bi ba état bi waxoon bàyyam ne ko ñun xamaguñ la muñ laa recevoir moom président bi yónnee pour ñu recevoir ba kon yëf yi continuité la. tànk kanam waaw loolu dafay tegtal ne ñoom ñu ngi dox seen. tànki bàyyi te te alquran wax na ne bu doom yi jaaree ci tànki bàyyi yi ñu yégaleen maqaama baay ak maam yi. Hmm. kon loolu leçon morale la pour ñun ndaw ñi nga xamante ne ñun ñoo des dégg nga war a suivre mag ñi nga xam ñu ngi nekk ak ñoom. Hmm. loolu yëpp nag li ko indi mooy. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم, واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا li ko indi mooy ñoom dañoo am base bu solide buñ taxaw dafa am benn tableau d'honneur bu ñuy xool waxtu wu jot ak lu àdduna yëngatu yëngatu rek ñoom duñ topp modernité duñ topp actualité dañ koy natt tout le temps ci muhammadu rasulullah ndax sunu sëriñ muy cheikh ibrahima ñes dafa wax ne ku la yar ku dut bi rek amul yar wala munut yar te Cheikh Ibrahim Niass moom pire produit Muhammad Rasulullah la woon te tamit produit yonant bi la doon jaay àdduna bi wax leen ne cohabitation bi ngeen bëgg yonant bee leen ko mën a jàngal te ayu silmi bi nga xamante ne àdduna bi soxla nañ ko tey te ñëpp ko soxla tey te yàlla moo waxoon yonant bi ne ko yonantam ne ko yaa ngi dem àdduna waaye bu fa xiif bu fa mar maanaam bu fa torox te xiif ak toroxi doomi aadama yi ci kaw ci àdduna bi lu ko indi ñàkk jàmm kon Cheikh Ibrahima Niass dox gi mu doon dox ci àdduna bi yépp moom produit yonent bi sallallahu alayhi wa la doon jaay àdduna bi te jar na loolu mooy résultat bi nga gis tey biñ demee ba Afrique gi ñu nekk ñoom ñëpp ñu gis ne takkee giñ bëgg a takkee Afrique munta nekk sans Cheikh Ibrahim ñas kon si la ñuy xamee ne moom produit bi mu jaay Afrique ak àdduna bi jar na ñun ñi tukki am sunuy morom yu tukki ak sunu sëriñ ci njëkk tukki biñ tukkee li mu gàtt gàtt gis nañ ne ba tey produit yonant bi bi bàyyi jaay àdduna bi ba tey àdduna tey la ko gën a soxla. Hmm. moo tax comme bu doomam jógee di xalifaam. Hmm. dégg nga engouement bi am efficacité bi amaat loolu daf ñuy fàttalil dégg nga Maulana Cheikh Ibrahim Niass. Hmm. dégg nga ne. Euh, euh, adduna bi soxla nañ ko ba tey. Mhm. moo tax tey. Mhm. te dogguma la sax waaye euh, déglu naa envoyé nañu ma benn reportage. Mhm. bu xam naa la télévision camerounaise wala télévision ci télévision ya moo ko def mais boo seetlu waaw télévision nationale bi mais boo dégloo ni premier ministre bi waxee mooy feddale sax li nga xam ne wax nga ko mooy ne ñoom ay politiciens lañu waaye nag ñoom dañuy soxla nitu diine mhm. yoo xam ne dañu fiy nekk mhm. bu ko defee saa yi ñuy bëgg a màmm rek ñoom ñu orienté leen mhm. suñu suñu bëggee teg seen tànk fenn ñu niital leen nee na loolu euh, dund gi mënu ca mënu caa ñàkk loolu itam dafay wane ne rek maanaam euh, moom dem na waaye itam fekk na fa ñu soxla euh, nam ak la mu fay def foofu laay sofee ak benn laaj balaa may ñëwaat ci Babacar mooy euh, boo demee ci réew yi nga xam ne miin nga ko lu mel ni États-Unis mhm. ak réew tubaab yooyu yëpp mhm. da ngay gis phénomène islamophobie mhm. nga xam ne l'islam boo xam ne bu ñu ne kii jullit la ñu ne toog jàpp leen wala daw leen yore na bomb islamophobie boobu mu nekk ci jàngoro yi nga xam ne waras na ko saafara euh, boo ñëwee encore nga dégg ñuy waxaat terrorisme wàllu terrorisme bi itam nekkat jàngoro joo xam ne waras na ko saafara nan lañu mëna mën ci méthode ak doxalin ak école Cheikh al Islam El ibrahim bagnas ci histoire bobu lo xamné da fay nek l'islam bu xàllal benen yoon bu bokul ak ñeneen ñi ko xalal benen yoon waaw parce que Cheikh ibrahim bagnas mom islam soufi la doon la doon consommé tay islam soufi moy birit bi ndax damay wax nit ñi bés bu nek ci sama waxtaan yi ma naan leen jullit yi loo ba cinq piliers islam yi nga matal ko confirme confirmer nga sa identité en tant que musulman mais innahu la maqama abdullah lañ soxla té loolu li la ci mëna yar moy deug deug islam soufi bi nga xamante suñu sunu mag ñi denga nga doon seen outil mo doon sen outil bi nga xamante luñ def ci aduna bi ci sen réew ak réewu rek ñom islam soufi utiliser denga nga ba mëna foo xamante ne kudut ñoom yàppoo fa. maa ngi koy wax loolu nga jàpp ne mooy efficacité bi. foofu mooy efficacité bi. Hmm. ak tamit personalité bi ndax nit loo jàng-jàng war ngaa am say yëfi bopp yoo xamante ne yaa ko moomal sa bopp. Hmm. bokk na ci Cheikh Ibrahima Niass efficacité mooy daan désintéressement bi muy désintéressé wu ci képp kum jàkkaarloo koo doon ak loo am. loolu da soxlaw ko loolu da doon tax mu gaaw ci sa xol bi. te di nga ko jox sa nopp gi parce que dalay leer na yow li ngay xëccoo kii soxlawu ko. te jàngal nañu ne ñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala borom xam-xam yi jàngal nañu ne ku bëgg nit ñi bëgg la da leen di bàyyi ak seen alal. ku bëgg yàlla bëgg la da ngay bàyyi àdduna. te Cheikh Ibrahim Niass bokkoon na ci li efficacité am. Mm. mooy àdduna moom xëccoowu ko woon. ak xolu nit ñi moo ko taxoon a jóg. Mm. waaye tamit alal yi nit ñi amoon ak seen daraja yeeg seen séesu nguur yi Cheikh Ibrahima Niass mënoon na ko am waaye da leen teel a woon ne lii taxumaa jóg. Mm. man vi li ma tax a jóg mooy xol yi nga xamante ne bu baaxee ñëpp baax. Mm. te loolu ku ko visé si àdduna bi soxla frontière da ngay dagg frontière u ethnie da ngay dagg frontière u euh, euh, euh, terrestre maanaam suuf. frontière u dëkk yi da nga koy dagg te doo ko yëg. da ngay dagg frontière u ethnie te doo ko yëg. te lii Cheikh Ibrahima Niass mënoon di ko def ci àdduna bi mbooleem organisme yi ci àdduna bi fexe nañu euh, dindi frontière wu euh, religieux frontière wu ethnie frontière wu euh, espace suuf jéem nañ ko ba sonn mënuñ ko te ñi ko jote def sax dañoo yàq mais Cheikh Ibrahima fexe na ba yar nit ñi ba ñu fàtte diine yi ñu yor li leen gën a ñor muy al insaniya mën a am cohabitation ba ñu fàtte tamit tariqa yi ñu bokk ba ñu fàtte tamit dernier ñi am xet yi bañu faté tamit ne man sénégalais la wala gambien la wala musulman lolu bay bi ko défé efficacité am na ci dénga dawul xolé kenn ludul ni borom bi doon xolé jaamab yàlla yi lolu tamit bokku ci islam soufi yaram parce que Cheikh Tidiane dafa wax ne man nazara al maxluqaat bi ayni shariati maqatahum man nazarahum bi ayni al xaqiqati azarahum ba pare mu ne man man man man kushifa lahu an kamali zati alzamtuhu al atab man kushifa lahu an kamali asmaai alzamtuhu al utub dañ ne la te loolu ay yaru islaamu suufi la Cheikh Ibrahima Niass ko utiliser Cheikhu Tidiane jàngal ko ne ko képp ku ñu woon jëmm yi na nga yaru képp ku ñu woon jëmm te képp koo woon yar rek mu accepté la loolu bokkoon na ci efficacité Cheikh Ibrahima Niass képp ku ñu day wi na nga noppi te wax nañ la tamit ku xoolee doomi aadama yi bëti charia ñëpp ngay alak waaye ku leen xoolee bëti xaqiqa ñëpp ngay may ngant loolu dalay may tamit efficacité pour ñëpp nga mën a gaaw a dajeek ñoom pour wax leen lu ñu leen mën a dégg hmm. loolu bokkoon na ci efficacité Cheikh Ibrahima Niass bokkoon na tamit engouement biñ gis fu mu ñëw rek dégg nga ñëpp babbee koo wër ko muy politique muy religieux muy suufi muy commerçant muy ku nekk parce que dañuy dañoo gisoon benn personnalité boo xamante ne. ba pare sax am na ah. bari ñoo xam dañuy ñëw pour dugg ci diine ji. voilà parce que Cheikh Ibrahima moom comportement am la woon. Hmm. comportement am bokkoon na ci li gën a am doole ci ooteem te loolu Cheikh Tidiane wax na ko man taxaqaqa bi xaalatin laa yaxlu laa yaxlu minha xaadiruhu képp ku dëggu ci xaalam ku toogaale yow du mucc hmm.